d'accord avant bay delloo kàddu gi euh, Mohamed peut-être euh, monsieur le ministre également mën nañ wax ne de peut-être mën nañ gis ne ne y a deux poids deux mesures euh, bu ñu xoolee keroog bëggoon na amal li nga xamante ne moo di conférence de presse presse am nangu lu ñu ne ko au yéen ngi tenir quand même seen point de presse non non mm-hmm. xam nga <clears throat> administration gouverneurs yi ak préfet yi mm-hmm. am nañu responsabilité ci ordre public ordre public tamit lu fekkee am na lu koy troubler dañu koy prévenir. d'accord yow boo taxawee ci taxawaayu war a perturber ci ordre public. Mhm. mais la ku leen ñu jël seen matukaay du ñu bàyyi ba nga perturber ordre public bi ba pare ñëw di di joytu euh, on ne fait pas le médecin après la mort donc foofu c'est la responsabilité de ceux qui en ont la charge. ñun dañoo dem suñu conférence de presse suñu permanence. Mhm. suñu biir permanence amul benn perturbation amul benn intention amul benn acte bu ñu ko mën a mën a mën a loolu tamit bu fekkoonte ni ñun. am na intention bi préfet bi ou sous préfet bi ou bi daf ñuy arrêté parce que bu gisee ni parce que aussi état état état aussi kenn du ko surprendre xam nga président waxoon na fi kàddu gu nga xam ne gars yi dañ koy dañ ko bañ a fat dafa leen waxoon ni li ñu dal mars 2021 dootuñu dalati ah qui qui s'y frotte s'y pique parce que l' état doit rester l' quand même mi ngi noonu procès politique euh, dañ may comploter euh, ñu gis ne euh, monsieur le ministre est-ce que kan nam tamit sunu démocratie warul ñu ko reposer wu sur le débat autour des programmes wala projets de société que nag affaire Sweet Beauté poli dañ procès politique ñenn ñi jàpp ne am na mainmise peut-être de l'État complot derrière ñu gis ne débat bi dafa baa ci benn enseigne que doo comprendre léegi Sénégal ñi fi yor sax xam-xam waxatuñu Euh, yéen ngeen yor responsabilité yor nguur est-ce que mënuñu jéem a orienter le ci ay projet de société ak programme pour que Sénégal mën ci jariñu que deux ans yi nii tamit ñuy ñuy dund ci ay mbiru mœurs mbiru mbiru euh, voilà non je suis parfaitement d'accord mm-hmm. que démocratie Sénégal war na ak si tey ci niveau bu nga xam ni mm-hmm. on ne pouvait pas arriver à certaines choses mm-hmm. mais choses yi du ay tribunal tribunal bu Kaffrine ba bu Kaolack ba ak bu Dakar yëpp yem. chaque jour des citoyens sénégalais ñu ngi leen di traduire. pourquoi jant ñu wax ne homme politique waruñu cee bokk. ou bien journaliste yi waruñu cee bokk. journaliste bu ñu fi jàpp journaliste yëpp def ko def réunion ne voilà ñun dañ libéré diw le monstre et cetera et cetera. homme bu ñu laal ñu ne voilà c' est un complot. alors que y' a d' autres citoyens. simples anonymes chaque jour qui sont traduits devant les tribunaux et qui perdent le droit. ceux qui font l'opinion mooy les hommes politiques ou bien les journalistes seraient-ils au-dessus des lois dans tous les pays du monde c'est ça euh, aussi la démocratie la démocratie que tout le monde l'état de droit exige que l'état lui-même soit soumis au droit mais mais aussi que les citoyens soient tous d'égale dignité et justiciables devant les mêmes mais un ministre de la République ñu dénk la ay deniers publics c'est très normal euh, bu ñu amee lu ñu jaaxal ñu ne la kat ah monsieur le ministre Euh, am nay rëx-rëx wala xëy na am am na rapport bu génn est-ce que jar na yóbbu ci yoon bay porte plainte xam nga bokkul ki ko wax ah. nekkoon na député am na aussi ay député yu nekk ci noonu bu ko neexoon mm-hmm. mu ne ah dem dëgg naa ni benn neuf milliards product je une commission parlementaire mm-hmm. je veux que ñu leeral ko loolu kenn du la ci wax dara mais boo taxawee nga ne am na rapport c'est affirmatif da ne am na rapport bu ko épinglé sàcc la su doon ci réew bu normal du fi taxaw di wax man maa ngi déglu. mais ci contexte bu ñu ko waxee. mais amul gis nga nag contexte euh, politique yow yow léegi am ah. su ma fi dérapé woon wax la lu ñaaw après da nga am nu nga ko réglé muy Fatou Mada parce que nañu seetlu aussi que dañu am njaboot. Mhm. di am ñu nga xam ne dañoo gëm respecté ñu. Mhm. mënoo ñëw rek parce que homme politique la tu es libre de tout dire. mais bu Sonko d' accord mënoon naa d' accord mais je connais Mame Mbaye Niang mhm. su d' accord ni def na erreur. mu wax ko publiquement def naa erreur parce que nit ku nekk yu jub rapport boobu mënu ko génne xam nga rapport maa ngi dégg ay woy avocat fii la question est simple mhm. la question mooy rapport bi génne ko. mais li nekk ci ginnaaw plainte bi monsieur le ministre. mais sachant que ne mooy un citoyen. sachant que ne un citoyen. oui mais dafa am un citoyen du nom de Mame bu ñu fi tey s'est senti diffamé. mais loo bëggoon mu def. Mhm. loo bëggoon mu def. Mhm. génn tontu leeral. looy tontu déet waaye def na ne. mais moom dafa weddi weddi waat. Mhm. combien de fois wax nañ fii combien de fois ay nit wax nañ ko. mu weddi mais boo demee nag ba nekk un leader politique. de cette envergure nga taxaw avec tout la responsabilité nga ne ah am na rapport bi. mais lui le minimum qu'il peut te demander. c'est de sortir le rapport. boo demee nag nga xam ne juum nga. Mhm. tey bu Ousmane ne woon juum na man on m'a trompé. Mhm. on m'a induit en erreur je m'excuse c'est un être normal. mais ma ma ma mbay nga aurait en aurait tiré peut-être les conséquences. Mm-hmm. mais defoo ko nga salir image yu nga salir réputation yu nit. Mm-hmm. simplement parce qu'on est en politique. et ñu leen di gis derrière cette plainte et ñu leen di gis ne derrière cette plainte il y a une volonté il manifeste peut-être ci ñu ko euh, ci ñu euh, bëgg a euh, bàyyi Ousmane Sonko wala ñu bañ a bàyyi Ousmane Sonko mu dem ci élection présidentielle 2024 imaginez bu ñu ko condamné peut-être peut-être yéen ñi nekk ci pàcc beneen langue gi yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi bàyyi xel conséquence bi mu mën a jur. ci un candidat quand même un opposant bi nga xam ne solol na leen lool mu bañ a bokk ci élection yu ñu jëm. travers ci ay. mbirum mbirum eh, mbirum mbirum eh, porte plainte ak affaire IG ak IG e. mais mais ça veut dire que yow. waaw li ngay wax. mooy kum neex nga accuser nit lu la neex te dalul ci fekk surtout booy def politique. ba pare deuxièmement man dama jàpp ni man man de ah, gisuma ko xam ma ko mu sonal dafay man bokkuma ci dama jàpp ni un bu fekkee ni yaa ngi bëgg a nekk candidat à une élection présidentielle nag homme politique de manière générale am na looy looy war a jombal sa bopp beneen bi ak guñ ci élection présidentielle. waaye li ci des bari non non élection présidentielle bu jotee. yéen ñi ñëpp ci ngeen ku bëgg a nekk ku bëgg a nekk candidat ah, ah. dana nekk ma jàpp ni si les gens sont sincères a pas de problème. mais candidat yoo xamante ne monsieur le ministre également euh, nañ ko wax rek mais itam on dirait que ne da ngeen ñi nekk candidat ñu dul nekk candidat bu ñu xoolee. ci naka configuration bi actuellement monsieur le ministre. gis nañ fi kaawu Karim Wade euh, gis nañ fi kaawu Khalifa Ababacar Sall maintenant on est avec euh, Ousmane Sonko. et ñëpp xam nañ dayoo bu am aussi monsieur le ministre. mais mi nekkul candidat. candidat la da ngeen woon. ko ci parrainage football xam nga man sportif ngay waxal même match de football dafa am ay règles doo tëb rek sol sa culotte dugal sa maillot nga damay football. mais wax da nga am licence. ci mm-hmm. da nga am licence. ñu ne dafa am certificat médical soo ñëwee mais Bamba Dieng recalé ko fii ci benn. ci benn équipe. Mm-hmm. parce dafa def lii médical ñu recalé ko. Mm-hmm. Kalidou Fadiga carrière fan la jeexee. du dañu def test médical ñu gis ni. am na arythmie cardiaque ci compétition bu nekk dafa am ay si sinon lu ñu doon éviter mooy am 1000 candidats à une élection présidentielle su ñu amee fii 100 candidats à une élection présidentielle yéen journaliste naka ngeen koy couvrir ban sénégalais mooy am le vrai débat programmatique mais non mais attendez mais même bulletin unique xam nga yow loo ngay wax yow voté bi da wax mhm. mais dafa am processus dafa am équipe télévision mhm. yu ànd ak candidats yi foo doon dépenser un nga dépense cent francs mhm. ça aussi c'est le budget de l'État mais ñu ne nañ ay règles

nañ ma wax benn candidat rek bu génnee ay preuve am ne am naa temps de parrain conseil constitutionnel bi rejeté ah, am na génne na ay parrain monsieur le ministre. ma dama génne na ko de Malick Gakou également gisoon nañ dañ ko rejeté monsieur le ministre. xam nga Bougane bëgguma bëggatuma léegi ñuy ñuy jàppante jàppante <laughs> bokk politique mais. utiliser utiliser na sa voie politique. Oui. aussi moi je respecte cette voie là. parce que démocratie dafa pluralité. je ne suis pas avec Boudane il n'est pas pas avec nous mais il a sa voix et je respecte cette voix. lui aussi man le seul la seule chose que je réclame c'est réciproquement aussi ñu respecté. munoo nekk dans la dans la politique nga nekk rek donneur de leçon. saaga nit ñi terroriser nit ñi yaakaar ne que ça peut faire peur ba ñu reculer. mais saa waay da fekk ni yow D'accord. Parce que si les gens pensent que par des insultes, ou bien par injures, ou par des menaces, ils arriveront au pouvoir, ils se trompent lourdement. monsieur le ministre, beneen actualité bi itam li ko mooy li ñu duppee chamboulement au de la magistrature à travers le conseil supérieur de la magistrature remue-ménage carrément euh, lecture première bi ngay def par rapport. c'est la marche ah normale non mais quand même dénomination le président de la République euh, euh président du conseil supérieur de la magistrature. mm euh, à chaque fois qu'il estimera utile de, de, de, faire bouger les gens, mais il doit, il doit le faire. Parce que tous, tous des magistrats, tous d'égale dignité, tous de même qualité, formés dans les mêmes écoles, qu'il y ait un moment où qu'il y ait des permutations, c'est le lot normal. Ça, pas... Chaque jour, uh mhm. -huh. conseil des ministres, on a nommé presque neuf personnes comme oui. ça mais on va ça c'est à l'approche des élections bien quoi que ce soit. et parallèlement certains, qui ont analysé la chose comme quoi à quelques mois de l'élection présidentielle et que bon il y a des procès également qui sont euh, yu nekk suñu kanam jàpp ne amul benn benn coloration par rapport ak li xew chamboulement bi. c'est-à-dire que loolu on doit toujours en parler Cheikh Tidiane Coulibaly dafa dafa retraite suñ ko changé nga l'administration territoriale, chaque mardi, chaque, chaque, un mois, deux mois, il y a des changements. Mm -hmm. C'est ça la marche normale d'un État. Mhm. dem nee naa la conseil des ministres boo dégg. Mhm. depuis un mois deux mois il y a des nominations. mais oui. Eh, mais du procureur quand euh, yàggul bi ñu ko tegee fi nga xamante ne moom moo di ci euh, fi mu nekkoon muy Amady Diouf. tey jii ñu contourné ko yóbbu ko file di cour d'appel également euh, te laaloon na aussi ci dossier bi nga. xamante ne moo nekk les personnes. Un dossier, c'est les faits. Mhm. Aucun procureur ne peut changer des faits. Aucun procureur. procureur boobu école la jàng. mais vous pensez que les gens. il peut vous pensez que les gens n'ont pas leur crédibilité à préserver. vous pensez que les gens dañu ñëw rek on on leur fait faire n'importe quoi. quel est l'intérêt à le faire c'est-à-dire un dossier c'est un dossier et les avocats sont là. le dossier il n'est pas euh, euh, secret c'est-à-dire les les avocats dañu ko xam. Hmm. parties yi ko xam le procès il est kenn mënu fi def lu nit mën a teg baaraam ëllëg ci ay tricheries. c'est pas possible def notre pays a dépassé ce stade là. mënuñu def beneen lecture kon sur ces changements notés au sein de la magistrature. c'est le fonctionnement normal d'un État de la justice. les hommes passent, mais À quelques mois de l'élection présidentielle, euh, on sait déjà, voilà, xam nañu date élection est le 25 février le parti tey ku ci mujjee prononcé wu def déposer candidature am c'est Déthié Fall des candidatures sont en train d'être euh, de de de, de déclarées on a des candidatures déclarées euh, ba léegi également euh, Benno Bokk Yaakaar